quatre cent millions d'euros chaque an pour Lionel Messi gars yi chiffre boobu prix boobu noonu xam nga ko paree pour fay ko Lionel Messi chaque année Al Hilal mooy rivalu club bu ñoom Cristiano Ronaldo bi di Al Nassr ñoom gis nañ ne jamono ji Lionel Messi dafa nekk ci ay difficulté mook PSG ci noonu la professeur situation yi proposé benn salaire boo xam ne nii ah néew ma ne mbindeef du ko du ko du ko renoncé de waaye du ko du ko du ko delloo de waaye du yomb de quatre cent millions d'euros chaque année incroyable ma ngi xaar gars yi ci commentaire yi nag bu doon yéen ngeen toll ci niveau bi Lionel Messi toll di ngeen ko jël ou ak lan ngeen di conseil Lionel Messi mu jël ko dem foofa ci Arabie Saoudite wala mu toog kon ne en Europe moom nag li mu bëgg mbébétam mooy que mu toog Europe di wëyal nekk ci niveau bi nga xam ne fi la toll ba jël lii di Copa America bi di ñëwaat loolu daal la bëgg moom moo nekk mbébétam mu doon loo xam ne ni vraiment choix am la mooy xool lu ko neex mu def ko mais en tout cas 400 millions d'euros moom non c'est énorme énorme football moom jamono ji Ah, beneen affaire la wallaay ndeysaan bu loolu weesoo gars yi Chelsea tey da doon football ak Liverpool ci match la boo xam ne nii vraiment vraiment match bu géey match bu naqari mooy loolu ñaari club yooyu moom jamono jii daan dañoo toll ci ay guddi yu bëccëgul doo gis jeu doo gis occasion bu franc boo xam ne nii yow dàmm nga ko daan gis ci ñoom seen équipe yooyee te it occasion bu franc sax buñ am duñ ko dugal inefficacité totale ngay gis. milieu terrain bi link du am entre milieu bi ak défense bi ak attaque bi finalement da ngay dem ba amour bi nga daan am daan leen seetaan sax actuellement day wàññeeku quoi vraiment vraiment xam naa ni fan Chelsea yërëm naa leen jamono ci ak fan Liverpool yi nag tàmm ñuy gis genre yu mel ni mu ngi noonee bu loolu weesoo gars yi ki ñu naan Harry Kane actuellement Manchester United moom la def priorité moom la bëgg a jënd indi ko ci attaque pointam boobee ngir mu mën leen mën a jàppale waaw actuellement. Euh, Lolande njool mi moo fa nekk te attaquant la boo xam ne ni ab renard de surface rek day sonal défense mais ñoom li ñu bëgg carrément Eric Ten Hag dafay football joueur bu mel ni ki ñu naan Eric Kane lay bëgg wala ay Karim Benzema nga xam ne dañuy bokk ci jeu bi comme la nga xam ne mu ngi doon def fële ci Ajax ak ñoom seen mu ngi noonee may ne xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee Lionel Messi moomee ak salaire bi nga xam ne moom lañ jël décision fay ko loolu weesoo képp ku bëgg affaire de publicité wala collaboration ak sunu compte yi. boo gisee mail am na su duggee suñu compte TikTok bio bi di nga gis benn mail bu ñu affiché foofu mail boobu boo ko contacté incha allah lépp lu ci war dina la ko wax ci njekk ak teranga ñi abonné gu sama chaîne YouTube maa ngi leen ñaan ngeen dem YouTube bind Pa Assane Gueye Lébou ngeen abonné activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu leen rawati. salaamaaleykum amateur de foot yi paa yi nañ ci jàmm j'espère alhamdulilah waaw Lionel Messi actuellement ay famem ñu ngi koy teg pressing ñu ngi teg pressing. seen bébét mooy lan Messi jóge fële ca PSG dem baax sax actuellement moo ne seen bopp bu loolu weesoo avant loolu sax mën naa ni Lionel Messi dafa am problème actuellement ak waa PSG ci supporters yi ba ci direction bi sax waaw am na ñoo xam ne dégguwut ak ñoom ci noonee match bi weesu Lionel Messi supporter doon ko doon yuuxoo façon yuuxoo bu nekk gis nañ entraînement bi weesu yee entraînement yee weesu Kylian Mbappé ak Lionel Messi Mbappé tulli bal bi ci kanamu Messi Messi demaat di jëliwaat bal bi mu tulliwaat ko mu doon geste yoo xam ne bëgguñu tam bëgguñu di ko gis ci football mondial ci ay coéquipier waaw ci noonee nag après bu ñu ko yuuxoo famille Lionel Messi actuellement ñu ngi def le tout pour Messi dem rejoindre FC Barcelone am na ay discussion yu am ci diggante bi actuellement Xavi moom euh, génn na ba ne ibbil na porte yi Lionel Messi te Messi ñëw fële ci FC Barcelone loolu mbégte la goo xam ne mënu koo sax xamul fa mu koy waxee de même que Sergi Roberto actuellement danoo yàkkamti gis kiñ naan Lionel Messi ba pare beneen firnde bi mooy lan Lionel Messi. actuellement PSG daa mel ni bëggatul dara ci moom nag daf ne ko pour mu wàññi salaire pour en buy prolongé bu naree prolongé dafay dañ koy exiger pour mu wàññi salaire am te Messi parewul sax pour wàññi salaire am fee mu nekk fële ca PSG waaw mu doon joueur boo xam ne nii vraiment actuellement mu ngi ci ay guddi yu bëccëgul fële ca club bu euh, capitalu France boobee. ay ci noonee nag man tamit gëm naa ni buy rejoindre FC Barcelone dina wàññi salaire am puisque nangul wàññi salaire am mais bu demee baax saa tamit forcément dafa war a wàññi salaire xaw ma nag dina fa dem ou pas ma leen xaar nag ci commentaire yi est ce que gëm ngeen ne Lionel Messi mi dina rejoindre Barça sax nag actuellement kaa bi commencé naa critique waaw mu lu ñuy gën di dem muy gën di metti waaw MLS tamit mu ngi fi waaw championnat euh, fële ca États-Unis ñoom it bëgg nañ ko pour mu ñëw rejoindre leen foofee waaye baax Barça bu bëggee carrière nekk ci kaw a kaw continuer di jël ay trophées individuels ak ñoom seen. xam naa ni Europe boobu la war a toog soit mu toog PSG wala mu delluwaat baax Barcelone mu ngi noonee bu loolu weesoo gars yi kay Keita Balde moom tey jii dugal na ak club bi di Spartak Moscou mu doon joueur boo xam ne nii réeré woon nañu mbir vraiment euh, c'est malheureux quoi talent gâché vraiment mu doonoon koo xam ne nii ba muy doog a débuté ñëpp amoon nañ ci moom yaakaar mais kenn xamul lan la yàlla peut-être moo dogaloon destin am noonu lay demee. ay ñi abonné gul sama chaîne YouTube s'il vous boo duggee sama bio TikTok. di gis gis logo YouTube bi ngeen bës ko dem abonné ci jàmm ak salaam ngir mën ma soutenir ñi bëgg tamit ñu publicité leen seen i produit entreprise yeeg ñoom ñu bëgg collaboration bu ngeen duggee tamit sama bio TikTok di ngeen gis benn mail boobu mail boo leen ko bësee direct dina leen yóbbu euh, si euh, ki nga xam ne moom ngeen war a déggal pour wàllu publicité yeeg collaboration yeeg ñoom seen bu ko defee seen mbir gën a yànj nit ñi gën cee bàyyi xel bu baax baax kon nag jàmm ci yéen les gars bu beneen yoon ci yàlla na leen yàlla fay waaye kontaan naa ci yéen de ah jaajëf waay salaamaaleykum amateur paa yi nañ ci jàmm j'espère alhamdulilah waaw Lionel Messi actuellement ay famem ñu ngi koy teg pressing ñu ngi teg pressing seen bébét mooy lan Messi jóge fële ca PSG dem baax sax actuellement moo ne seen bopp loolu weesoo avant loolu sax mën naa ni Lionel Messi dafa am problème actuellement ak waa PSG ci supporters yi ba ci direction bi sax waaw am na ñoo xam ne dégguwut ak ñoom ci noonee match bi weesu Lionel Messi supporter doon ko doon yuuxoo façon yuuxoo bu nekk gis nañ entraînement bi weesu yeewi enchaînement yee weesu Kylian Mbappé ak Lionel Messi Mbappé tulli bal bi ci kanamu Messi Messi demaat di jël waat bal bi mu tulliwaat ko mu doon geste yoo xam ne bëgguñu tàmm bëgguñu di ko gis ci football mondial ci ay coéquipier waa ci noonee nag après bu ñu ko yuuxoo famille Lionel Messi actuellement ñu ngi def le tout pour Messi dem rejoindre FC Barcelone am na ay discussion yu am ci diggante bi actuellement Xavi moom génn na ba ne ibbil na porte yi Lionel Messi te Messi ñëw fële ci FC loolu mbégte la goo xam ne mënu koo sax. xamul fa mu koy waxee de même que Sergio actuellement danoo yàkkamti gis kiñ naan Lionel Messi ba pare beneen firne bi mooy lan Lionel Messi actuellement PSG daa mel ni bëggatul dara ci moom nag daf ne ko pour mu wàññi salaire pour en buy prolongé bu naree prolongé dafay dañ koy exiger pour mu wàññi salaire am te Messi parewul sax pour wàññi salaire am fee mu nekk fële ca PSG waaw mu doon joueur boo xam ne nii vraiment actuellement mu ngi ci. ay guddi yu bëccëgul fële ca club bu euh, capitalu France boobee ay ci noonee nag man tamit gëm naa ni buy rejoindre FC Barcelone dina wàññi salaire am puisque nangul wàññi salaire am fële ca PSG mais bu demee Barça tamit forcément dafa war a wàññi salaire am xaw ma nag dina fa dem ou pas ma leen xaar nag ci commentaire yi est ce que gëm ngeen ne Lionel Messi mi dina rejoindre Barça nag actuellement cas bi commencé naa critique waaw mu lu ñuy gën di dem muy gën di metti waaw tamit mu ngi fi. waaw championnat euh, fële ca États-Unis ñoom it bëgg nañ ko pour mu ñëw rejoindre leen foofe waaye baax sax bu bëggee carrière am nekk ci kaw a kaw continuer di jël ay trophées individuels ak ñoom seen xam naa ni Europe boobu la war a toog soit mu toog PSG wala mu delluwaat FC Barcelone mu ngi noonee bu loolu weesoo gars yi kay Keita Baldé moom tey jii dugal na ak club am bi di Spartak Moscou mu doon joueur boo xam ne nii réeré woon nañu mbir vraiment euh, c'est malheureux quoi. talent gâché vraiment mu doonoon koo xam ne nii ba muy doog a débuté ñëpp amoon nañ ci moom yaakaar mais kenn xamul lan la yàlla peut-être moo dogaloon destin am noonu lay demee. ay ñi abonné sama chaîne YouTube s'il vous plaît boo duggee sama bio TikTok di ngeen gis logo YouTube bi ngeen bës ko dem abonné ci jàmm ak salaam ngir mën ma soutenir ñi bëgg tamit ñu publicité leen seen i produits entreprise yeeg ñoom ñu bëgg collaboration. bu ngeen duggee tamit sama bio TikTok di ngeen gis benn mail boobu mail boo leen ko bësee direct dina leen yóbbu. si euh, ki nga xam ne moom ngeen war a déggool pour wàllu publicité yeeg collaboration yeeg ñoom seen bu ko defee seeni mbir gën a yànj nit ñi gën cee bàyyi xel bu baax a baax kon nag jàmm ci yéen les gars bu beneen yoon ci yeneen vidéo yàlla na leen yàlla fay waay kontaan naa ci yéen de ah jaajëf waay